mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu sëj Abdou Karim Mbacke na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi nga xam ne day siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan ngi noonu muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day dama mi am na pommade boo xam ne boo ko ci diwoo xam ne képp koo xam da am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku miracle boo xam ne mooy nga xam ne ñoo am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général ak frotté boo xam ne pour sportif yi ak pompe miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew mi kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi fàllu fall fële nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj jërë ngeen jëf mbokk internet Lutte TV point com ñoo ngi leen di bu baax a baax di leen jaajëfal tey mardi 23 novembre ñëwaat ak yéen ci yéenekaay làmb yi ma ci ànd ak Boucar Ndour dalal jàmm. Soxna Amina maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar di nuyu mbokk Sénégal yëpp internet TV ni nga ko waxee te nekk mardi 23 novembre 2021 ñu ñëw ko indi si yéenekaay yi. noonu la demee dañ ko daal di ubbee at xët yu njëkk yi nekk ci journalu suñu làmb mu daal di nag Siteu Siteu mi nga xamante ni moom mooy waajal combat ak Papa Sow nee daal day yéeg wàcc ci li nga xamante ni moom moo di ay victoire am ak i défaite un champion euh, un champion de l'irrégularité loolu la ko journal bi xëy titré mu mel ne nag tey bu doon xaalis daal mën nañ ne dollar la mhm. maanaam day yéeg di wàcc tey mu am ndam suba mu am défaite. noonu la ko journal bi xëy tiitre moom Siteu Amina. waaye victoire obligée ci combat bi nga xamante moom la jëm ndax xaar bi yàgg na ay fansam te ñëpp dañ koo sas jamono ji xaar bi yàgg na te tey boo seetloo tey làmb tey moom la gën a yaakaar parce que mu gën a féete ndaw nekk avenir ci làmb kon yaakaar naa ne combat bi moom la war a gën a mën a jaral donte nag Papa championnat daanaa la boo xamante ni tey Amina Ndiaye def na parcours bu baax ci fa njiit ndam da ko war parce que tey dafa jóge si écrit tamit beru ndam da ko war nekk tamit koo xamante ni tey écrit bi mu ber dafa am ñu bëri ñu ñëw topp ko jóge si yeneen écrit ñooñ tamit mere leen mu nekk teg ay maanaam euh, sas yoo xamante ni tey dafa diis lool lool lool ci moom moom Papa Sow kon moom tamit ndam rek moo ko war moo tax combat bi moom Amina Ndiaye défaite interdite la pour ñoom ñaar ñëpp. défaite interdite pour ñoom ñaar ñëpp waaye nag ba tey euh, bu ñu desandee ci journalu suñu làmb mu daal di fësal euh, combat bi nga xamante ni Jamaïcain le jeune promoteur daal dina koy euh, fësale mu war a dox ci diggante Fils de Balla ak Goro Sock war a am ci mois de mars 2022 incha allah. moo tax journal la revanche la revanche nekk na combat bu neex boo xamante ni diggante fils de Balla la ak ki nga xamante ne Amina Ndiaye moo di Gora Sock mu war a nekk na combat bu neex mars nag lañ ko kale incha allah. mars lañ ko kale incha allah ba tey jamaïcain journal bi nee na daal di nay cartonné ci diwaanu stade bi Iba Mar euh, ginnaaw euh, mbooloo bu bari bi nga xamante ne ñoom ñoo fa ñëw fees fa dell ci euh, combat bi passé. ci combat bi passé Assane Ndiaye moom lañ doon wax le roi di Iba moom Assane Ndiaye te dimanche passé nag. gis na tamit di

boo fi ne mu bañ ay mbokkam bañ ba tax nag làmb boolewaat leen ñoom ñaar ñu war a bëri yaakaar naa nag combat bi Amina Ndiaye yërëmu ma kii daanu de kii daan laa yërëm ndax xam naa ne kii daan pour mu amaat combat ça tout un problème waaye nag comme que ku su mel ni garçon ak ñeneen ak ñeneen ñoom li ku ñu ko laayang fi am nañ yaakaar ne dinañ def lu tout pour maanaam ñuy mën a bëri parce que ay mbëri nga fi ay champion yoo xamante tey seen handicap yëpp mooy ko ni gars yi dañ ragal duñ leen jël pour ñu bëri kuy dem ci arène jàpp ni defee interdit a di nga yokk jom di nga yokk a a bëri du def ay bilan ay schéma yaa ma gën a am waaye daal li leer ba leer mooy ko ne euh, mbëri yi ni ñuy année balancé Amina Ndiaye du yoon plus de 6000 licences te boo seetloo tey lii bëri ci at bi du mot sàmbar loolu jaarul yoon. noonu la demee ba tey euh, ci biir euh, journal bi buñ ci daal di desandi ak yenn combat bi nga xamante ni moom la Pape Ndoye amoon euh, dimanche passé ba mu ci jógee nag ba daal di ci jëlee rafet nee na jamono ji nii daal Franc la daal di teg bët. ba daal di si jëlee ndam moo ci am ndam moo am victoire moom Pape Ndoye Franc lay défier rek moom la bëgg a jël bëreeg moom Amina Ndiaye. moom la bëgg a jël ba xam ko ko jox am déet ci biir bi la ñuy daal di dugg ak yéen. Euh, ki nga xamante ni moom moo di li nga xamante ni moom moo di galaa bu jax bi amoon ca diwaanu Adrien Senghor euh, dimanche dernier X9 moom moo daal di euh, dem dominer l' international Ngor Ndiakh. waaw l' international Ngor Ndiakh nga xamante ni tey champion la bokk ci équipe nationale c' équipe nationale mbër yi moom nag moo finaaloo ak X9 ñu naan ko ñu naan ko El Hadj Thiaw Sow moom sax newoon na ma ne léegi ne moo gét la tuddee boppam loolu la ma waxoon moom tamit ak Mame Fall bu bu dëkk Fambine. kooku tamit nee na moo gét la tuddee boppam kon yaakaar naa na lamp yi tàkk kon nag moo gét talal lamp yi ñaari mbër yu daal la xamagum ñu wax daal nga ne moo gét lañ tuddee seen bopp muy El Hadj Thiaw Sow gi ñu koy wax X9 ak maam Faly borom famine kon mën naa jël slogan def ko ngelaw du fay euh, lamp sondeel lay fay ba tey gala bi am ca diwaanu Fimela 20 euh, 21 ordinateur daal moom moo daal di jël 500 mille ni ko fuuf nit tulli. waaw ordinateur moo jël tot drapeau ba parce que 1 million lañ tegoon si poids lu kon ordinateur ñibbi nag téeméeri junni maa nga fa woon intégral bi na ko gars yi xaarandi léegi léegi léegi mbaru Ibrahima Diouf bi moo jël gala bi amoon ko Mokhtar ah, bi nga xamante ni tey candidat la à la noonu la demee bu ñu duggee nag ci euh, li nga xamante moom moo di euh, tuuti suñu làmb yi nee nañu Zoss at xaar nañ ko lool ci li nga xamante ni moom moo di tournoi bi. waaw Zoss xaar nañ ko lool lool lool Amina Ndiaye si li nga xamante ni rek moo fi mu jëm parce que combat bi mu jëm nii Amina Ndiaye combat risque la combat bu ama am doole la diggante ak Aliou Seye moo tax nag waaw nee nañ daal ñu ngi koy xaar li ñu naan ñu ngi koy xaar ci virage bi. waaye gars yi ñu ngi koy xaar ci virage bi Amina Ndiaye. kii nii di Ouzin production tamit tëgg na journée bu neex ca moom mi nga xamante ni euh, promoteur la moom tamit bokk ci ñi nga xamante ni dañuy faral euh, di def ay euh, lutte simple mi ngi organiser journée bu neex. waaw organiser woon jour organiser woon na journée neex dimanche bi la woon fële sa arène nationale di ko combat bi war a dox na diggante professeur Mané neex a neex moom ak journée jamaïcain bi ñoo tombé woon Amina Ndiaye fële sa moom nag arène nationale la doon tëgg. ordinateur tamit moo nekk vainqueur ca diwaanu Fimela. waaw moom la journal bi andiwaat rek si tuuti rek moo jël gala bi nga xamante ni day moo amoon fële ca Fimela moom Mamadou Faye ñu naan ko ordinateur moom tamit di fàttali ne bokk na ci équipe Sénégal bi ci CEDEAO bu CEDEAO bi ñu génn di fàttali sax que ne ngoon moom la invité ngoon si vainqueur des arènes moom ak Ibou Senghor numéro 2 na ko xaar Amina Ndiaye. noonu la ñuy euh, nii di euh, euh, victoire avec la manière avec la manière la ko daal avec la manière la ko daane yéen ba ci kaw dóor suuf noonu la ko daane moom Pape Ndoye combat bi doon dox si diggante ak Abou Ndiassé donte nag li naan ku lamb amaana Abou Ndiassé def na erreur boo xamante ni tey erreur fatale ko mën a tuddee rek waaye daal Pape Ndoye daan na ko avec la manière. ñu ci bari nag gis nañu ni nga xamante ni moom la dikkaatee cette fois ci Pape Ndoye lutte sans frappe ca diwaanu Adrien Senghor El Hadj Thiaw moom moo dominé Ngor Niakh. moo dominé Ngor Niakh El Hadj Thiaw Sow nga ne externe rek wala nga ne moo gëstu rek ñoom tuddee waat boppam ah, moo jël raw gàddu ba nag ci ki nga xamante rek moo di Ngor Niakh Amina après quatre ans d'absence Pakala le danger du retour. Pakala le danger du retour Amina Ndiaye parce que boo seetloo rek ba mu gëj na bëree lool lool lool lool ñeenti at la toog bëriwul moom Pakala champion bu toll nii moom champion d'Afrique la def lu ne ci lutte simple am ay combat ñëw dugg fi ci calaf génn si waaye depuis gis nañ ne pour mu bëri ni ma ko waxee sànq rek day jafe lool lool lool te du yoon waaye nag euh, journal bi jàpp na ne daal il risque gros face à Forza. ci tàggatam gu mujj laataa muy toog 4 ans te ñëwaatul ci arène bi Pakala euh, ba mu doon bëree ak Forza Forza daal di koy dóor dóor metti moom la journal bi ñëwaatee ñëpp yaakaaroon ne mooy ñàkk mu daal di koy féete kaw. parce que combat bu métti la si ñoom ñaar Amina Ndiaye. moo tax nag bu ñu ko tëggaatee ne moo tax laa jàpp ne lay gën a métti moo tax ma ne yërëm naa kiy daan parce que ku ku si daan ñoom ñaar di nga a am problème parce que ñoom ñaar ñëpp seen problème yëpp yëpp mooy problème adversaire gars yi ñemewuñ leen pour jël xam nga ban mbër moo gën a neex ragal mbër bi nga xamante ni daa toog lu yàgg bëriwul di préparer boppam di suivre combat di am yeneen i expérience kookoo gën a neex a ragal kookoo gën a neex a ragal donte sax gars yi dañu naan ne diw gëj naa bëre day day day désapprendre waaye boo seetlu ko su mel ni sax daaw ak daawaata jéeg dañu ko daan gis muy wàcc si simple bi di ko ñàkkante ngir gën a am repère donte sax Forza lañ mën a wax ne gëj nañ ko gis mu bëre waaye tamit Forza mbër bu expérimenté la ak contact yi muy def loolu noonu yaakaar na ne daal ñoom ñaar seen combat du yomb Amina Ndiaye noonu la demee kon euh, fi la ñuy daal di yem ak yéen ci xibaaru revue de presse yi yéen mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur luttetv.com fu waaye mënti nekk di Sénégal ca bitim réew maa ngi lay jaajëfal jaajëfal la bookar bi ma ci àndaloon yow di la jaalewaat Amina Ndiaye sa goro bi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm suuf oyof si kawam di jox yëpp gars yëpp nag rendez-vous le 18 décembre fële sa jaxaw siin Momo Ngom Mbaye lu mise un million la ñu teg ko foofu noonu fan si club Bakalu TV di ko tëgg mu nekk nag tey sargal Abdoulaye Ndour nekk responsable politique APR ca Fatick fii si Nord Foire nekk tamit ministre conseiller à la présidence de la République ñu ngi fay woo ñëpp képp kuy dund laa mu daal man Boucar maa ngi lay woo le 18 décembre fële sa jaxaw si noonu la demee kon jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu sëñ Abdou Karim Mbacke andil na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi nga xam ne day faj a ngi noonu muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day damay mi rot am na pommade boo xam ne boo miracle boo xam ne képp koo xam da am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku miracle boo xam ne traitement roñon lay def li nga xam ne mooy drépano pommade miracle boo xam xam ne am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général ak frotté boo xam ne pour sportif yi miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew mi kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi fàllu faal fële nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj